mbokk yi jërë ngeen jëf euh, ñu dalal leen saa yu nekk rek leen a dalal ah di leen wax ne leen Sahel Network TV la benn boo xam ne amul ñaar ñaar la boo xam ne amul ñett ñett boo xam ne amul ñeneen ñeneen boo xam ne amul juróom benn képp la ah, ndeysaan ah, maa sama ñaari malaaka yu ndaw yi bu gàtt bu xees bi bu rafet bi mun dama ko defee ne ko soo njooloon di mën a bàyyi foos ak ndeysaan bu ñuul bu bi macha allah ah, xale yu am yar macha allah xale yu am am am yar Anta Aïcha Anta yëkkal ñu ñu gis. waaw waaw loolu dina am solo. yëkkal ñu yëkkal ñu asalaamaaleykum di seetaan Sahel hmm. Network TV. Hmm. Euh, di baalu àq di baalu àq santaat yàlla rek comme que ñu ngi fekkee. Hmm. Euh, nuyu naa leen daal. soppee na bi. naam Ada tey nag lu ma bëgg a teg ci table bi mooy. yëkkal oh. dafa maa métti nag ci benn côté. waaw yekkal parce que vice président bi. dafa ooyee Gambian youth yi lazy. lazy maanaam xayal te loolu nag dafa nekk loo xam ne métti na ma métti na ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan. Mhm. parce booy wax tamit ni dafa tayal. at mhm. least nga tànn wala nga ne yee na. Gambien mm-hmm. youths mm-hmm. parce que du ñëpp nekk comme di bàyyi seen ni mm-hmm. euh, comme di dem toog ni ci campagne yi wala toog seen kër yi defuñ dara koo gis euh, Gambia tamit youths yi ñu ngee try pour am lu ñoo yóbbu seen kër euh, te ndaw yi léegi ñooy nekk magi ëllëg soo sooy sooy wax dangaa identify at least nga ne comme yéenay su ko defee. Mhm. ñeneen ñi tamit ñoo xamante ne xam nga dañ léegi ñoom mhm. dinañ ci gis seen. seen bopp waaye ñoo xam ne léegi wuñ loolu du leen métti. parce que ñu ngee fas jom. Mhm. di yóbbul seen waajur yi ñu ne laa yokkal ñaan. soo loolu dafa nekk loo xamante te bëgg naa ñëw waxtaan. ay waay lu la métti waay anti Aïcha. non lu tax mu métti ma ah. ah? comme yow man tayalu ah? waaye ñeneen yi uh-huh. tayal ne su su daf leen war a métti at uh-huh. least uh-huh. ñu am jom ñëw suñ maas yi catégorie a ada ñu bokk suñ catégorie am fit bi ñu ngeen man nga wax wax dafa nekk loo xam ne wax lu doy waar la mhm. olof Njaay ne doy waar ne gis nga wax ndox génnee dafay gaañ waxuma la sax bal waaye ndox bu tuuru la kenn mënu ko buub non non wax ndox bu tuuru la kenn mënu koo buub te gis nga wax xam nga ma jox la misaal wax wax dafa mel ni gis nga nga teg pour sax mhm. gis nga bun xam nga bun nga lañ lay nas pour ça waaw gis nga fi ñoo nasee dafa melni tay wax ni mel mm-hmm. nga samp pour ça bi nak ñëw jaar ci bun bun buubale gii na mm-hmm. xamoon dégg nga li ma wax de la mm-hmm. la wax nak bi ci boppam moy jaar ko jaar ci bun buni pour ça bi te yow bo di terrain bi do fa mëna duggal fa nga libre légui nak misal bi moy manam nak bi duggal na ci bun buni pour ça bi génn na ci benen side bi légui dafa bëgg duggal ci biir bun buni pour ça bobu non fi jaaroon fa la bëgg jaaraat ndax dina mëna a du thank you loolu mooy loolu mooy wax motax euh, li nga wax dafa am solo motax man jamono yoo jamono ji nek ni gis nga nit ki booy wax da ngay segg li ngay wax manam mm-hmm. bul ni ñepp so généraliser rek amna na ñoo xam ay gor lañ amna na ñoo xam ay nit yalla lañ amna na ñoo xam ñu sel lañ amna na ñoo dia ñu am barke lañ yaa leena togn te waru lo leena togn ndax la Gambien yu euh buñ baye xel demba mun nañu wax ni waaw bari won nañu daan campé way du jamono ji man ci suma gis-gis mm-hmm. jamono ji ñaawul ba neexu na dama koy wax gis nga yaay jame dafa bëti yu ci bari ha. Ah. Mm-hmm. ñu baal ma xel nag waaye dama koy wax parce que dafa ñëw ne su ma mbokki ndongo yi. fi mu ne ay campé waaw koy wax te <laughs> ay campé yi campé yi yëpp la ngay tas boy yi ku nekk commencé di rafa rafa man dal lo ma suma jangat waaw wax dal dafa wara sol tubéy wala oddu waaw waaw te lo sa dafa nek lu important soo ko seetee parce que nga nek njit at nga xelal yu si même suñu amutee concept bi sax yow soo leen ko waxee dineen dineen dem dineen dem kaay ñu def buñ tax ñu wax leen di ansia da yow ba tay man li ngeen wax ci lo la dellu wax don na lo xamné ne soo ko xasee ba wax ba pare eh, hmm. su yaaxoo mhm. pour ñu jëgaraat ko dafa jafe légui comme mom lim wax nonu tay xëj na ñi ko ko rafetlu hmm. am nañu ñoo xam ne naxari na leen naxari boo xam ne mm-hmm, mm-hmm. surtout yow muy kilifa kenn amul sañ-sañ war a taxaw di saaga kilifa mm-hmm. waaye tey soo gisee yut si wala ndaw yi war a taxaw di wax ay kàddu yu ñaaw am lu ñoo yóbbante di ay wax yoo xam ne nekka waxi naka sudu noonu te teguñ ko si yoon ah, dañ ko gis si yow kilifa bi waaye waaye tamit ah, man dama naan soo gisee tey ndaw yi ñu bëri ñu lees yi toog government bi dañ war a dimbale ndaw yi kon ndax mel ni man yow su ma la déggee government bi ñu ko lees yi waaw lan koy wax. waaw ok dañ leen léegi ñoom ñu waroon a taxawal ay place yu nga xamante ni tey Gambie man gisuma ay centre yu nga xamante ni dañ ko teg pour free la. Mhm. Mhm. a bëgg a liggéey kapinta. Mhm. nekkul a bëgg a liggéey welda foofu noonu li faa liggéey si kapinta li nga faa am si xaalis di ko jànga fekkut fi Gambie. te buñ fi schools yoo xamante ne dañoo ne kapinta ngaa jànga foofu free la leen jàngal for free mhm. so government bi ma leen laa ñaan vice président bi wax bu mu wax noonu nañ si defaat gëstu bu baax a baax a baax mhm. ñu dimbale ndaw yi naam du ne nekkul ñi toog sax mhm. nekkul ñi tayal am na ñoo xam ne ba tey ñu ngee toog waaye si ëpp dañ fas jom because tey ndaw boo mun te gis éene moo nekk dama bëgg a dimbale suma waaw te société du ñëpp a mun a soog kos toog si office so am na am na liggéey yu bëri luñ lu mën a def suñ leen dimbalee xam leen li seen métti ci xool mm-hmm. leen man loolu rek bi nañ gëstuwaat ñu seen ni ñoo defar ah, mu ngi noonu daal gis nga ni ki daal mm-hmm. euh, li li olof bi xam nga ñun ban jamono la ñuy mm-hmm. gis nga cere yi gis nga gis nga rongo ñu baadoole yi mooy siin seen cere ñoom waaw kay ah rongo ñu baadoole mooy siin cere yi buur kon dimbale leen ndaw ñi parce que bu ndaw ñi tayalee dafa mel ni dafa am fu ñu ko gisee ngeen baal ñu àq waaye loolu mooy dëgg Sahel Network la bañ ñëwaale may sopp na bi anta anta Aïcha. thank you so much ngeen jëf.